waa daayira Muxaddamatul Xidma ñëw di saytu li nga xamante ni mooy liggéeyu jàkkee soxna Astou Birame yi nga xamante ni moom lañu naal fii ci bërëb bi ci maanaam pàkk yi nga xamante ni ak dëkkuwaay bi nga xamante ni moom la Serigne bu joxoon waa Muxaddamatul Xidma ñu dëkku ko mun leen na ngeen dëkk ci dëkk bi te dara dox seen diggante ak jàkka ji suñu boom dogal ñu defee ko noonu alhamdulilah tey nag ñoom daayira xidma fii ci maanaam dëkk bi ñëw fii ci daayira Moukhaddamatoul Khidma fii ci jàkke asuga soxna sugaan bi di nemmeeku liggéey bi ànd koog jëwriñ sëriñ Alioune ak mboolem kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk liggéey tey jii ci bis bu tedd bi ci àjjuma nga xam samedi nga xamante moom lañ doon def daayira Xidma fii ci dëkk bi gaa yi dem Makka itam xam nañ ne boo jógee ca Kaaba ga war a dem Masjidu Aïcha faaw si ngay jël def fekk xaalis bi tam daa mën jël ak bis xëy ko ñu lay sant bu baax ci liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy jël di ko def reportage muy jàkkee soxna ak asugaa nga xamante ni moom la daayira mu xadama da xidma naal fii di ko def def boo xamee bu mucc ayib lay doon lii nag suñu Aline wax na appel bi ñu ngi ciy woo mboolem ëxlu xasida ñu ngi ciy woo mboolem murit ñu ngi ciy woo ko Soxna Muskaani ñu ngi ciy jox Seexul Xadim bi ndax lii kat sagal lislaam la sagal murit gi la te nag amuñu lu dul ndigalu Sëriñ Saliou Mbacke na ngeen dëkk ci dëkk bi dara dox seen diggante ak na ngeen ba mun koo mun koo def lu ko gën ngeen doo koo toj kon nag wax na ni wax na ni bi xam nañ nañ ci def lu ko gën nañ ko yeggale jàmm ngir jëmmi seen tuwaay jébal ko seen ngi sant ñëpp di gërëm ñaan suñu jëwriñ fi nekk yàlla ñu ci gën a yàgg loolu tamit dañu ànd ak ñoom jébbal liggéey bi Serigne Touba suñu taxaa ànd ko Cheikh Amdi Modou Mouhamed Moustapha ànd ko ñun yëpp ak suñu caméraman jërëjëf jërëjëf wasalaamaaleykum wa